xoolal xoolal journaliste. lu la gaa yi rëgg-rëgg yi wax. gaa yi. gaa yi rëgg-rëgg yi lu la wax. wóor oto bi xanaa. ne lan. ah non non dañ ma ne wàññeeku rek man xaw ma lu xew. pour lan loolu. mais nag làmb moom ah. gaa yi nañ ci taxaw xam nga xam nga xam nga réew na loolu vraiment. waaw adduna bi ñun man sama soxla laa doon dem di doxi. waaw violence bi ñuy woote ci làmb vraiment rafetul. waaw nit ñi di ci bàyyi xel ci biir parce que tey man ñoom ñu ngi doon def ci erreur boo xam ne man comprendre lu parce que imaginer niñ ma niñ ma kii ak loolu vraiment. waaw kontaanuma ci loolu daal. dan laa kar ne la Sa Thiès nga yóbbu doo jaar. non wàññeekul ay xeer wër oto rek yooyu. mba mbaa yàquñu oto bi. non yàquñu ko mais jekkul daal. est ce que yóbbu woon Sa Thiès. <laughs> gaa yi rëgër yi ñoo ñoo kar Ablaye Diop xaas ne ko da yóbbu Sa doo jaar fii dëppal wër ko ak i xeer. fii laa taseeg moom rek ci ci rond-point bi. sama soxla laa doon doxee. sa soxla nga doon doxee. te dañ laa dëpp nii. da ngay def non yoon yoon yu bëri la. fépp yoon la fépp yoon la nee ko fépp yoon la. <laughs> tey a gis lii. Ah, mais borom xaas borom xaas bi. waaw mais taw féex. waa déet yow yow mënoo dem de.